si marché Casse bi ñu nemmee ko fi jëndikat yi ak jaaykat yi xaw fi bëri loolu ba tax na nag ñoom de ñoo ñi xamal ni marché bi doxul benn yoon maanaam marché bi ñoom lu ñuy jënd di jaayaat am ñu si bénéfice benn yoon clients yi nag ñoo ngi taxaw di ñaxtu nag mbir mi dafa xaw a cher lool. waaw avant koor gi nag euh, bon prix changé wul lu bari de pratiquement hausse bi moom ba tey moo ngi fi. ba tey affaire yi mu ngi yokk mais bon ñu ngi sant rek changement bi si côté ndawal la gën a la gën a dem légumes yi moom ça va ndawal bi daal moo xaw a tuuti rek prix ndawal bi moo gën a cher par rapport ak euh, ndugg yi ak euh, yeneen denrées yi. ñu nemmeeku tamit prix yi nga xamante nag moom la ñuy jëndee di ko jaayatee prix yooyu am na benn différence bu si am. waaw yokk na nag si biir koor gi ndax ndawal li bu ñu jubee koor gi la gën a yokk xam ndawal moom yàgg naa yokk. Euh, frontière Mali bi ñu tëj fan yële andi na ay handicapé si ndawal bi yokku woon na trop ndax ñu ngi doon jaay ay 3500 ay 3300 mais depuis bi ñu tojee frontière bi ba noonu ñu ngi doon jaay 3800 3700 3600 mais fi mu ne nii actuellement ci biir koor gi moom ñu ngi koy jaay 4000 waaw yàppu nag bi 4000 yàppu xar bi 4500. prix daral bi la njëkk a yokkoo foofu la njëkk a yokkoo xar yi nga doon jëlee 500000. danga koy jënde léegi cinq cent cinquante mille li nga doon jëndee six cent mille léegi six cent cinquante mille sept cent mille nga koy jëndee. fi nekk ni pour l'instant nii la prix gën a seer quoi ci bu njëkk quoi. Hmm. si biir kër gi moom benn kees bi nga tiim nii sax mënoo xëy door ah, daa xaw a métti loolu moom. prix dafa xaw a seer waaw lu ñu koy jëndee. ñu dañuy jënd di jaayaat quoi. avant koor gi ñëw boobu la gën a dox quoi. waaw instant bi moom gars yi lekkuñ quoi. waaw ay concombre ay kaane salade ay oignon vert yooyu moo gën a tane quoi. ndugg mi gars yi tuuti la ñu mos billaahi jaaykatu jën bi de moom mi ngi ñuy xamal ni jën amul benn yoon si atum ren jii de ma maanaam fii si Sénégal nag jën dafi manqué loolu ba tax na ñoom nag bu ñu bëggee jën dañuy dem ba frontière Mauritanie pour am fa jën dikk di ko jaayaat te boobaa nag ñoom duñ si am benn yoon bénéfice buñ si bëgg am. waaw am na différence léegi daa gën a seer quoi. te nu ñu jegeyoo ak Mauritanie sax moo ñuy dimbali mais Sénégal fu mu ne nii dafa ñàkk a jën carrément parce que bateau yi ñuy daggal licence moo bëri quoi étranger yi te gars yi dañ daan dem ba bisaaw te léegi Bissau amatul jën quoi fu mu ne nii licence su Bissau rek yaa ngi koy jënd un million deux cent mille te léegi gars dañ le sonal te géej amatul dara Sénégal fu ne nii moom jën bëreetu fi moo gën a jën moo gën a seer yàpp fu mu ne nii